La tournée nationale bi les politiques yi président de la république décliné dans son politique 5 nous 5 ñu partager ko ak jigen ñi jigen ko programme yu am solo yo xamné jigen programme zéro déchet ñi programme PSE vert jigéen ñi ñoo ko porter donc loolu moo tax nag ci biir tournée bi dañuy échanger ak jigéen ñi pour ñu mun porter aussi ces projets là mais dañuy profiter aussi président wax na ko loi sur la criminalisation du viol ñu partager ko ak population yi wax nit ñi ku ko def li la ciy fekk ba ñëpp xam ko ba loolu dañ fii Sénégal une bonne fois pour toutes